nun a ah, man day am naa confiance ci chef d'âge wax dëgg yàlla ndax it du guleet du guleet te ay kilifa yu kese ay kilifa yu mag ñoo fa ne te amul kenn koo xam ne kii mën naa def dara ci yéen te man yëgu ma ko lu mu yeex yeex il faut ma yëg ko te loolu wax dëgg xamu xamu ko ci ñun daanaka dañ ko doon ci jabaas suñu bàyyi sax xamuñu woon loolu daañu fi joxe maye dund ak sa ko yëpp wax dëgg yàlla daanañ ko joxe dafa réew mi nag moom mënta ñàkk coow foog mu am ñuy ay wax yoo du ne mais nag vraiment eh, kontaan na ndax sax liggéey bi dañ ko liggéey ànd ceeg waa mairie bi kontaan nañ ci lool sous-préfet taxaw na ci bu baax ci affaire énergie bi ak suñu li ñu doole woon yëpp liggéey nañ ko ba nga xam ne tubaab fukal kontaan nañ ci. Ah, bu ministre bi ñëwee def lii ah, ñu ne ko ministre bi jaaraama xam naa ñun. liñ ci dolli rek mooy ñun ñi xam ne ñoo chef ñu jéem wax suñu doom yi doomu jobaas yi nekk ci àll bi ñu dimbali ñu gisa nañ yeneen doom yi ni ñuy ñu jàppale ministre bi loolu dafa baax ñu jàppale ministre bi dana baax lool ku nekk war nga koy yeggee sa dëkk am na ay xale yoo xam ne ñi nga nekk Amérique ñu nekk Italie ñi nekk fu nekk di doomu Jobaas kon war nañoo ñëw itam à notre secours jox ko ministre bi mu jox ko sous-préfet mu joxuñu ko jaadu na bu koor jotee eh, tombé ak ni nga waxee mbas mi am eh, baax nañ ñu def sunu béy sunu waar eh, loolu la moo tax maa ngi sant chef de village fi teew yëpp ànd ak ndaw ñi pour ko lii mën a lu jot askan wi ndax askan wi moom soxla na kon loolu mooy moo sabab lii ñu def tey. incha allah xam naa fan yii di ñëw mbaa semaine yi di ñëw nguur gi wàllam ni ñëw. waaye ñun lii moom dañ ko aadawoo fii hmm, kon lu lu jaadu la ñu rafet bu baax a baax euh, sunu ay waajur niñ ko jëlee ndax at bu nekk dañ koy def hmm, kon ñu ngi ciy am mbégte yàlla mi ñuy sant yàlla yàlla mi ñu may ñu mën ko euh, déwén ak jàmm allah buñ ko fekkee tal ko nañ ko defaat kon lii lu jaadu la. ñu gën a góor góorgóorlu xeex bi ñuy xeex mbas mi di Covid 19 ndax euh, feebar bu bu gaañ la feebar buy reyaate la te ni muy lawee dafa gaaw kon ku nekk war nga ci def béy sa waar Euh, lépp li ñu wax ci santaane yi ñu euh, gànnaayoo ko ba euh, daan ko fii ci réew mi ndax kat bu ñu ko daanulee du ñu dal leneen kon lii ñu nekk yëpp occasion la aussi pour ñu mën a tàggat suñu bopp tàggat xale yi tàggat également population yi kon sans su kanam léegi xale yi dinañ dem ci dëkk yi pour gën a yokk sensibilisation bi kon loolu lu may ñaax la ñaax ñëpp ci loolu. li jambul kenn jambul kenn jambul mag jambul ndaw jambul waa jabaas jambul keneen waaye nañu gën a fagarul rek bu ñu fagarloo dinañ ko daan waaye bu ñu sàgganee Euh, di def euh, loo xam ne dëppool ak li ñuy santaane mais dañ koy dañ koy am ndax jombul kenn kon ku nekk war nga ci béy sa waar vraiment ba ñu mën ko daaneel. bu ñu tëjee euh, maanaam aéroport yi dafa am ñetti xeetu avion yoo xam ne dañ leen di libéré bi ci njëkk mooy avion yi nga xam ne dañuy transporter ku feebar ñu tuddee ko vol sanitaire. ñaareel bi mooy vol spéciaux yoo xam ne ay ambassade maanaam ay réew ñooy ñaan pour ñu jël seen ay ndaw yi nekk Sénégal France da koy def États-Unis di ko def Belgique di ko def yooyu ñetteelu mooy vol cargo maanaam vol yi nga xam ne ñoo yor ay marchandise ndax marchandise bu indi ay médicament mbaa marchandise bu indi ay ay produits loolu il faut ñu bàyyi leen donc ñett yooyu ñoom rek ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy naw mais sinon beneen vol amul.